ñaar yoo xam ne ñu ngi bokk ci marche internationale Dakar Ceytu euh, ñu ngi ko junior euh, Boissy féetee sama ndeyjoor euh, di coordonnateur li nga xam ne kon moom mooy googulee plateforme wante itam Samori yi nga xam ne bokk na ci wàllum organisation ak it sécurité ñeel boobu la plateforme il faut savoir waxtaan ak ñoom rek kon ci jamono joo xam ne ñu ngi ci weeru février bi nga xam ne génnoon àdduna 37 ans yi ñu ngi koy moom Tomel euh, ñoom nag euh, ñu amal euh, lu am solo ak bu ne dinañ ci dikkaatam ak ñoom lépp rek ñoom waxtaan kooku ñoom balaa may sori kon dama leen di bàyyi nuyoo ma bàyyee kàddu gi ñu ko. waaw salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum adduna bi ñu leen di nuyu bu baax a baax kenn ku nekk santam di leen ñaanal yàlla sakku ñoom ci ñëpp. Euh, di rafetlu bu baax Coumba euh, Ndoffène euh, invitation bi ci kontaan bu baax pour ñu waxtaan ci li nga xam ne mooy marche internationale Dakar ci Thiès ak ki nga xam ne moo moo waral marche boobu ne moom xam ne moom mooy. œuvre du professeur Cheikh euh, Cheikh Anta Diop. sama hmm. laaj rek euh, idée marché boobu fan la juddoo ngeen amal marché boo xam ne ñu fàttali ko mu ngi jóge at bu nekk euh, Dakar dox ba Thiel bi nga xam ne si amati foofu la fekk mbaax ci département Louga ñu jëm hmm. ak it kilomètres yu bëri yooyu yëpp ana idée marché boobu fan la jóge waaw di rafetlu bu baax question bi. Kumba Ndoofeen dafa ñu jógee dafa jógee ci comme euh, ndaw Afrique maanaam comme yow mun na nekk yow la mun nekk man la mun na nekk sama frère Samori euh, nga yàgg xool benn affaire mu metti la lool nga ne lii euh, dem ci xar sama tànk tubéy lii dama toog di ko seetaan ndax man tey ndaw Afrique ñoo war a jóg taxaw temm pour siggil suñu réew Afrique man noonu laa ko jàppee Afrique dama ko jàppee réew jàppewu ma ko euh, continent bi nga ko balkanisé réew bi nga xam ne euh, euh, dafa am ay région mooy yi ngeen di dégg noonu Sénégal ak kii yeneen kii région donc mu daale ko suñu frère bi nga xam ne mu ngi tudd te xam nga ko bu baax mu mm-hmm. njëkk taxaw ci li atum 2015. 2015 la première édition bi. ok euh, tey li ñuy wax de ñoo ngi ci suñu neuvième édition. donc euh, jamono yooyu noonu la ko commencé mu nekkoon benn nit kese <laughs> moo ci engagé woon ah euh, dox ci dem ba ceytu. Mm-hmm. woon ne nappkat bi nga xam ne am na ko ci wàllum nit ku kawe ku toll noonu te nekk fii nii ñu bëgg jël ay kii liggéeyam. ay téeréem suñ ko ne sànni fee te fekk ñoo ngi jooy ñun Afrique ñoo ngi jooy saa su ne ni euh, am nañu ay jafe-jafe fu ñu jëm ku ñuy jàppale ci jafe-jafe yi fekk nit kooku noonu daanaka wax na lépp ci li nga xam ne buñ ko toppee tey daanaka dañuy jóge ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yii bi euh, donc euh, looloo waral daal moom mu def li ñu mel 2015 waaye la ca tegu Euh, marche bi commencé am ay nit 2016 euh, euh, mu am xaritam bi nga xam ne moom daanaka parewul loon sax pour ñëw marche mais bu ñu ñëwee fekk ko ne ah du des gannaaw donc gis nga engagement ndaw Afrique donc ba tey de 2023 bii nga xam ne ñoo ngi suñu neuvième édition ñu toll ci juróom fukki ndaw yi nga xam ne cinquante personnes yi nga xam ne egg nañu ceytu ok léegi nag ñu ci émission bi nekk nii ñu nga fa yeneen ñu nga fa. daanaka ñoo dox ba egg ceytu. donc euh, bu ma nee egg nañ ceytu maanaam marché bi euh, dañ koy tàmbalee le premier. le premier février. Mhm. Euh, le premier février dox ba le cinq février dañuy egg ceytu. te nga xam ni anniversaire wu disparition Cheikh Anta Diop le sept février. ceytu nag mi ngi nekk ci département wu Bambey. région wu euh, Diourbel. donc vingt neuf kilomètres wu département wu Bambey xam naa rek bu ñu gënee. ñu dugaatee incha allah ñu dugaatante. Mm. waaw kon yow euh, Samori ma dellu si waatee si yow rek peut être marche boobu tey euh, kilomètre bi moom cent cent cinquante quatre kilomètres la. te mu gënoon plus de plus de cent cinquante kilomètres daal ay minutes di ko dox. ah tey marche boobu seen condition lay amee organisation léegi yooyu bon merci dinañu am contentement pour tontu lu mel noonu organisation il faut dire que li njëkk mooy euh, marche bi dañuy wax nit ñi bu ñu lancé commencé communication bi euh, dañuy daal di wax nit ñi kenn ku ci ne ku ci bëgg ñëw rek na nga indaale ay claquettes da nga indaale yére yu diis parce que pour ne pas être toujours lourd pour nga bañ a diis ci ci yoon bi. voilà lu weesu loolu it am nañu suñu benn waay bu baax mu nekk doomu ceebu Sayer di ko nuyu au passage depuis deux ans mu ngi nii daf ñu may aal oto jox ñu chauffeur defal ñu ci carburant pour mu nekk suñu oto de liaison donc kooku c'est c'est un lu weesu loolu it am nañu yeneen i partenaires yu mel ni ñoom la Casamance ak euh, yeneen ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi ciy dugal seen i loxo pour mettre au moins marché yi ci ay conditions yi nga xam condition yu favorable la ni si boole ma ci permettre ngeen baal moom ma jaajëfal ñi nga xam ne jàppale nañuy mhm. eh, ci kii bi ku mel ni suñu tonton Boubacar Boris Diop nekk suñu parrain eh, marché bi moom it euh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax waaye bi di jaajëfal képp ki nga xam ne eh, dugal na ci loxoom pour marché bi mën a réussir lu weesu loolu la ñu ngi ci jaajëfal ñëpp di wax ni ñu marché bi marché ñëpp la mbirum Afrique la dañuy xëy pour professeur Cheikh Anta Diop te koo xam ne kii dañuy xëy pour la pérennisation de l'œuvre du professeur Cheikh Anta Diop kooku Afrique nga ko defaral parce que Cheikh Anta Diop dafa nekkoon koo xam ne dafa sacrifié lépp pour Afrique pour ñun comme ni ko ni ko Bassy waxee donc bu ñu ñëwee dañuy ne parce que il faut que ça va bu dul loolu sa déwén daaw defoon nañu benn marche dem fii Dakar dem Bamako Bamako pour eh, ne CEDEAO sanction ñu teg ci ñun ànd nit mm-hmm. donc durant marche boobu yóbbu boobu jot nañu am expérience li nga xam ne am nañ ko parce que 39 jours de marche nekkul li nga xam ne lu tuuti la jot nañu am expérience lu dul loolu ñu ngi suñu neuvième édition kon am nañu ay expérience mm-hmm. léegi ren marche bi moo gisee ren marche bi dafa gën a yomb nit ñi dañu gën a bi ren dafa gën a yomb parce que côté organisation am nañu suffisamment d'expérience vu le nombre d'années qu'on a fait mais aussi boo xoolee distance yi nga xam ne jot nañ ko jot nañ ko dox Mm-hmm. ren bu ñu ñëwee dañu ne nit ñi dañuy dox en file indien donc dox en file indien dafay permettre kenn ku ci ne si ñun dañuy mën a des ci groupe bi ñii dañuy mën a njëkk a àgg ñeneen ñi su ko defee ñun ñëpp dañuy départandoo ñun ñëpp dañuy àggandoo beneen bii man c'est l'un de nekk ci kanam euh, di gérer cadence bi bu ma gisee ki nekk ci kanam mu ngi accéléré bu baax ma ne ko dégg ñu ngi bàyyi ñee il faut nga wàññi tuuti pour ñu mën a pour ñu mën a pour ñu mën a ànd donc euh, loolu mooy côté organisation ci dox bi lu weesu loolu am nañu suñu point de chute parce que bu ñu jógee Université ant a Diop dañuy dem directement cimetière Thiaroye 44. Mm-hmm. même s'il faut le rappeler c'est pas un cimetière on a un cimetière de nom voilà parce que foofu kenn tëdd fa oh, je suis désolé de le dire. Mm-hmm. dañuy dem foofu noonu Thiaroye 44 bu ñu fa jógee euh, ñu dem école éducation bi jaay directeur école éducation parce que foofu la ñuy bu ñu fa jógee éducation dañuy dem par euh, ñi si suñu benn bu baax fa dem moom moo ñuy dalal foofu. mu ngi jógee foofu fanaani foofu bu ñu fa yeewoo dañuy dem école Pape Djibril Diouf bu Sébikotane mooy deuxième journée bi buñ fa àggee a daal di amal waxtaan comme éducateur yi ak élèves def sensibilisation si ñoom xamal leen kan mooy professeur Cheikh Anta Diop lan moo tax nit ñi war a gëstu eh, ci mbirum eh, Cheikh Anta Diop. ok du dox kese quoi kese. non kese du kese du kese bu ñu jógee école Pape Djibril Diop dañuy daal di directement lycée Poul bu ñu àggee au niveau du lycée de Poul foofu it amal waxtaan ci ak ak élèves eh, def sensibilisation. bu ñu jógee foofu àggee foofu ñu dem Thiès bu ñu àggee Thiès nii nii nag dañuy noppale ku di jaajëfal suñu frère suñu camarade Lamine Diallo nga xam ne ren moom moo ñu dara voilà jógee bu ñu jógee Thiès nag le matin dañuy dem académie Cheikh Anta Diop bu nekk Thiès. Mm-hmm. côté Air France Kada. Euh, bu ñu demee foofu waxtaan ak élèves yi def voilà def du jaar ci classe yi waxtaan foofu nag nekk na lii bu nga xam ne moom suñu kër la ñoom dañoo bokk si ñun parce que lu yàgg yàgg yàgg ñu nag ñoom ñoo nekk ak bu paree foofu def sensibilisation élèves yi administration ñëpp dañuy ànd bu ngeen ba ñu gën Thiès mu nekk la nga xam ne ñu ngi koy rafetlu bu baax baax waaye di nuyoo profité fi ci seen plateau nuyoo euh, administration euh, école boobu école boobu bu ñu jógee foofu Kara dañuy continuer Thiès dañuy daal di continuer directement bu Thiénaba Thiénaba waaw ci rajo Siggil Jigéen bu Thiénaba euh, bu ñu demee foofu non Gindiku FM bu Thiénaba rajo Gindiku FM di nuyu suñu waa ji fa nekk jéegi ak bu ne moom moo ñu fay dalal ñoom moom ak jigéen ñi naatangoo ñu fa nekk ñu def ko añ fa bu fa jógee continuer directement xombol bu ñu àggee xombol Euh, dañuy dem ci suñu frère boobu fa nekk gisee dem euh, ren boole nañu ak waa seenu xombol d'habitude ci lycée bi lañ daan dem mais ren ci seen bi lañu dem donc ci seen bi waxtaan ak élèves yi jusqu'à peu près vingt guddi gi tam yeneen groupe élèves yi ñoom waxtaan ak ñun li mel ni li ko booy tuddee gam def ko benn gàmm bu ndaw ci Cheikh Anta hmm. donc loolu voilà loolu mooy en quelque sorte d'organisation bi marché bi lañu doy donc bu ñu jógee xombol bu ñu dañuy yow rek dem Nangalma au de Nangalma di nuyu seen proviseur bu bees bi parce que fekk nañ fa keroog benn proviseur bu bees bu ouvert d'esprit bu mmh. nga xam ne voilà yaakaar naa bu ñëpp doon euh, mel ni moom rek minum euh, Cheikh Anta dinañ ci fawru bu baax a baax a baax di nuyu euh, ñi nekk tout le membre de l'administration lu mel ni seen intendant bi seen proviseur bi gis nañu taxawaay bi kontaan nañu ci trop trop trop mmh. di nuyu au passage seen voilà bu ñu jógee foofu bu ñu añee nangarment dañuy continuer directement dem à l'université Alioune Diop de Bambey voilà di nuyu au passage suñu jigéen suñu yaay madame Ndiaye c'est vrai ren fekkuñu la foofu mais gis nañu taxawaay bi comme d'habitude dara changé wul bu yokkulee wàññeekuwul voilà boobu nag université Cheikh Aliou Diop dañ koy amal naan ñu mu conférence. docteur Pampalé Seye moo koy organiser chaque quatre février foofu biir université waxtaanee ko ki nga xam ne moom mooy Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop étudiants yi nag ànd jaag directrice bibliothèque bi Maram Ndiaye. ñu dalal ñu voilà par ñu ci ay conditions vraiment yu bu ñu fa jógee nag dañuy daal di ko dafal à Bambey le lendemain élève lycée moderne yu Diourbel hmm. nga xam ne Papa Rissé yi moom moo nekkoon euh, coordonnateur du club Cheikh Anta Diop bu foofu at bu ne dañuy jógee Diourbel ñëw ànd ak ñun à partir de Bambey boo ceetu donc mu nekk ñi nga xam ne forme moo tax boo xoolee dernier jour bi nombre bi dafay gën a dafay gën a bëri parce que nit ñi dañuy jógee non seulement étudiant Bambey day am ñu ànd ak ñun mais day am le lycée de Diourbel dañuy ñëw ànd ak ñun voilà rejoindre ak ñun ñu def def ñu vingt neuf kilomètres yi des voilà dañ ko donc euh, loolu donc waa di jaajëfal vraiment ñun euh, mais di wax ak ñu nii wala naka la ñuy insérer yeneen établissement yi nekk ci yoon bi te léeg-léeg du ñu am jot pour jàpp noonu mhm. naka la ñuy liggéey pour yu mel noonu noonu pour ñu dugal ko parce que sama rappel yaay naa ne dañ daan jàpp lycée benn année jàpp nañu lycée Bargny dafa amal fa conférence mhm. Mhm. Euh, am na solo voici mu ngi àgg ci yow euh, ñu ngi toll loolu ñu yegg see ki nga xam ne moom mooy ceytu euh, am na ñu après ñu ngi waaw ceytu moom beneen affaire la Thiétou moom beneen affaire la euh, bu ñu fa yëgsee ambiance extraordinaire la fekk ndax gars yi daanaka dañuy dox ak euh, xam nga euh, marché bi dañuy def le plus souvent en direct. Mm-hmm. donc ñoom dañuy suivre marché bi fee ne ah, nañu waa départ nañu fii la di yëpp ba bu ñuy dugg Thiétou day fekk ñoom tam moom pare nañu ah, accueil bi xam nga waa dëkk bi ñëpp génn. bu ko defee euh, marcheurs ànd euh, ak bi bi bi kii def ambiance booy xam nga booy booy Cheikh Anta Diop xam nga yuux bi fii ñu ñu génn waa dëkk bi yëpp génn ah, accueil bu extraordinaire la am daal moom mm. euh, donc chaque année Euh, daanaka surtout ak yu mujj yi noonu noonu lay demee daanaka marché bi euh, comme ni ñu ko waxee day day gën di màgg. Euh, te gox goxaat yi foofu noonu dañuy gën a yëg ni ah, am na ay ndaw yi nga xam ne dañuy ñëw daanaka ziar ki nga xam ne mooy ci côté bi nga xam ne ñi ko xamuloon sax dëkk ci gox goxaat yooyu noonu tey jii ñu koy xam te yeneen dëkk yi nga xam ne xaw na. Euh, kii tuuti euh, ceytu lu mel ni ay euh, kër aale foofu noonu dañ koy dañ fay def pause ah, pause petit déj ah, yu mm-hmm. foofu noonu tam moom tey jii da ngay gis nit dañuy génn ñëpp génn ah maire yi di dañu félicité dañu encouragé di wax ci ki nga xam ne mooy chef entreprise comme nga xam ni. moo ngi commencé indi ampleur moo ngi moo baa ngi ubbeeku te marché bi dafa ubbeeku pour. tout un chacun amul xale amul mag ñëpp koo mën a gëstuwaat Cheikh. Mhm. xam euh, ki nga xam ne euh, mooy Cheikh Anta Diop. kon loolu activité yi ngeen koy ngeen ngeen koy def. waaw euh, am na solo parce que marché bi ñu eggee le cinq. Mhm. ceytu dañuy daal di noppaleku bu ñu noppaleku le le cinq le six dañuy daal di def benn kii nu ñu koy def sax bilan. toog ñun ñëpp euh, waxtaan euh, ci marche bi nan la fa demee euh, lan nag lan mooy jafe-jafe yi donc les responsables ñu jéem a jël mu léegi bu ñu jógee foofu noonu di préparer journée bi nga xam ne mooy le sept le SETDAL amal fa conférence comme bii nii passé conférence bu mag a mag a mag lañ lañ fa amal étudiants yi jógee Bambey élèves yi euh, mm-hmm. jógee euh, feneen ñu gerte sa Diourbel euh, ak gan yi yi fa ñëw ñi nga xam ne dañuy ñëw pour fekkee li nga xam ne mooy anniversaire bi ak waa dëkk bi donc chaque année dañuy dañuy innover dañuy def ay affaires yi nga xam ne yu bees la comme par exemple ñoo ngi wax ni Euh, bu soobee yàlla daal moom euh, chaque le 6 parce que le 6 dafay doon journée noppal mais chaque le 6 dinañ xool nu ñu organiser foofu noonu tam moom benn euh, kii nañ ko sax projection hmm. projet projection bi yaatu ci guddi bi indi ah, écran écran si si c'est sax écran géant hmm. pour projection donc pour permettre durant trois jours noonu le 5 le 6 le 7 mu am ay activité yu am solo ba nga xam ne bu ñu fay jógee waa dëkk dëkk bi ak gox-goxaat yi dañuy jëlee lu bëri parce que tam moom ñoom loolu la ñuy euh, fan yi nga xam ne da ngeen fay nekk ñun dañuy dëkk bi dee xumb ah dañuy jàng lu bëri tam moom ci yéen parce que dañuy topp di def émission tam moom di woo maire foofu loolu témoignage ko euh, parce que comme ni mu la ko waxee euh, ñun ndaw yi xamuñu ki nga xam ne mooy Cheikh Anta Diop donc dañoo war a taxaw temm pour pour pour xam ku mel noonu nit ku mag euh, ki nga xam ni yeneen dëkk yi ñooñu ko gën a xam ñun ñu bëri ci ñun dañ ko xam ne à travers suñu yeneen xaj yi nga xam ne ñoo ci yeneen dëkk yi te fekk fii la fii la fekkee baax donc ça sa euh, nous fait poser beaucoup énormément de questions sa morom bi nekk comme par exemple ay ay ay ay Europe genre yooyu noonu mu expliquer ci Cheikh nga ne mais mais mag kooku noonu kooku ñoo bokk ñoo bokk Sénégal bi nan la fa demee ça dañoo dugal ci ci ci recherche donc pour ñu wax ci ci li mu wax rek euh, marche bi yëmul ci marche kese yëmul ci marche kese ñun bi dañuy jokkoo ak ndaw yi jokkoo ak ndaw yi di créer tam ay ay ay club Cheikh Anta Diop dafa am commission suñu frère euh, di ko saluer de passage Mata Euh, commission pédagogique bi nga xam ne ñoom loolu kese mooy seen liggéey dem ci lycée yi dafa créer ay club euh, Cheikh Anta dina woo yow mi conférencier di woo kenn yi nga xam ne moom gën a xam Cheikh de temps en temps moom mu fay def ay conférence wala bu ñu amee bu ñu defee collecte yow am nga livre moom am na lëf kii am na li ñu dajale suñu livre yooyu noonu di xool ni ñuy defee dispatching yóbbu ko ci club yooyu noonu lépp ak lan ñu ànd ñun ak suñuy rak jéem a xam kuy Cheikh ci loolu noonu euh, di saluer de passage di ko gërëm di ko sant suñu marraine ren euh, Mariette euh, Diom Diop dañ ko tuddee sax nit ñi dañ ko tuddee sax doomu Cheikh Anta Diop ndax dafa taxaw taxawaay am solo ci mbir mi comme ni ko nit ñi di waxee rek euh, dafa yenn combat bi daal dafa yenn combat bi daal moom da ci taxaw taxawaay bu am am am solo ñu koy gërëm euh, di ko sant di ko di ko rafetlu ndax ñooñu noonu ay doomu Cheikh Anta Diop direct lañu ñoom dañoo dañoo am formation direct ci Cheikh Anta Diop ñooñu gën a xam Cheikh Anta moo tax mënuñoo euh, di dox sans pourtant ñu jege leen waaw loolu wax léegi affaire bi dem sama xel dem ci famille bi Cheikh Anta ñoom am na solo am na solo euh, mais famille biologique ñoom sax dañ koy wax. Euh, ñoom ëppalewuñu ci Cheikh ëppalewuñu la ci Cheikh. Cheikh Anta Afrique la Cheikh Anta Diop bu la. Mm-hmm. nit ki nga nga xam ne euh, dafa ñëw. Euh, ñu permettre ko mu rëddaat histoire bu àdduna xam kooku noonu nitu àdduna la. Mm-hmm. waaw ay euh, erreur yi nga xam ni ñoom euh, defoon nañ ko naan waaw Égypte du Égypte noir Égypte der bu weex la ak yooyu noonu moo ñëw rectifier lépp joxaat Afrique gëddam delluwaat Afrique la mm-hmm. kooku noonu nitu àdduna kon doomam yi. ñëwoon nañu foofu noonu sax moom comme ni ko ñëpp di ñëwee euh, pour euh, màggal bés bi euh, ñoom dañ koy wax ni Cheikh Anta Diop Cheikh Anta la. te ñoom tam moom dañuy rafetlu tam suñu engagement bi nga xam ne. engrais waaw am am ko daal. boobu bu ñu dégg si yow tey 37 ans sa sa sa léegi tey nan nga gisee am na lex bu ñu fi bàyyi tey est ce ngi waroon taxaw taxaw taxawoon nañ ko noonu. voilà nga boo xam ne le plus souvent nit ñi dañ koy posé mooy est que ni ñu waree taxawal Cheikh Anta Diop taxawal nañ ko noonu mais euh, bu ma laajee loolu damay laajte d' abord ñan ñoo ko war a taxawee ñan ñoo war a taxawaay taxawaay bi ngay wax noonu parce que déjà Cheikh Anta Diop c' est un multidimensionnel boo jëlee domaine bu nekk Cheikh Anta euh, am na li nga xam ne def na ko pour Afrique par exemple boo jëlee Cheikh Anta ci côté politique du man maa war a taxaw ne Cheikh Anta Diop bu mu fi bàyyi politiquement man maa ko war a defar parce que man bokkuma RND mais ñan ñoo war a taxaw def loolu noonu mooy ñun nga xam ne RND la ñu bokk malheureusement ñu waroon def nekk politique Cheikh Anta defuñu ko fii laa ko waxee ci seen plateau et je suis désolé de le mais Cheikh Anta mënul nekk ki nga xam ne moom mooy woote fédéralisme Afrique moom mooy woote pour ñun ñu juboo doon benn Cheikh Anta jóge Cheikh Anta jóge fi ñu jël RND xaaj ko en deux ñii di wax ay wax sànq damay dégg kenn di wax ci seen benn benn plateau télé di naan ay hérité authentique ak yële mais wax se da ngay bëgg a jóg ñu wax waxu Cheikh Anta bi ñu di jël combat a Anta Diop di ko def ay affaire personne ay affaire personnelle lu dul loolu sax tey am na ñoo am na loo xam ne Cheikh Anta sur le côté scientifique am na ñi nga xam ne ñu ngi ko ci taxawal sur le côté intellectuel am na ñi nga xam ne ñu ngi ko ci taxawal même bu fekkee sax dañ koy def mais fasuñu ci li ciy ji li ciy jiital liggéey bi ñoom ku mel ni euh, Cheikh Mbacke kii di taawoo mu ngi ciy def liggéey bu am am solo boo demee nag dem na ba bind la pensée politique de Cheikh Anta Diop. kon kooku euh, non bind na Cheikh Anta Diop l'homme de l'œuvre kon kooku mu ngi ciy taxaw taxawaay bu mu war a tax te yaakaar naa ku mel ni docteur Massamba Diop kii di caatam eh, ku mel ni eh, sama turandoo Samori Samori Diop tur Samori Touré Diop bon ñooñu yaakaar naa ñu ci ciy béy ñoom it seen waar waa marché international Dakar Thiès bi lépp bu fi Cheikh Anta Baye ñoom it yaakaar naa ñu ngi béy seen waar pour jëmmal waar boobu noonu kon mbir eh, dëgg la ñëpp mënuñu ñëwandoo. ñëpp mënuñu commencé ndox mais il faut reconnaître que am na ñi nga xam ñu ngi ciy béy seen waar am na ñi nga xam ne nag ñoom ñu ngi ciy profito te loolu il faut ñu wax ko parce que mbir àdduna moo demee noonu naturellement am na ñoo xam ne dañuy profito ci mbir am ñoo xam ne ñoom dañ ci nekk ku mel ni tonton Boubacar Boris Diop si dana fi Marie du Diop docteur El Hadj Amadou Fall ba nekk Casamance un vieux benn a la plus de la soixantaine inspecteur à la retraite waaye Mass Dakar Thiétou boo entamé la tournée Cheikh Anta Diop au de la professeur à l'université day daal di arrêté lépp ñëw nekk bi ànd ak ñun bépp lycée war a dem on fait des centaines de kilomètres ci biir àll bi pour sensibiliser nit ñi ci Cheikh Anta Diop day bàyyi ne quel que soit le nombre de jours day moom suuf la nekk ànd ak ñun kon kooku nekk nañu ñoo xam ne ñu ngi ciy béy ñu ngi ciy béy seen waar ci lekk nga xam ne moom nañu seet Cheikh Anta te mm-hmm. le discours il ne reste que le même ça ne change pas ñu modifié ñu le seul discours c'est le discours de Cheikh Anta Diop dem yi ne leen formez-vous à un groupe de sciences jusqu'au dents et arrachez votre patrimoine culturel Cheikh Anta loolu la parce que yéen tey seen euh, rajo bi nii boo leen mu nekk première rajo première chaîne ci senegal wala ci àdduna bi il faudrait ngeen teg li nga xam ne yéen a ngi teguñu ko te loolu lan moo leen di ko may formation moo leen di ko formation moo leen di ko may Cheikh Anta foofu lay wóoree ñëpp kenn ci ne ci sa domaine voilà il a excédé àgg un niveau supérieur te ñu bañ a ne noonu dama bëgg mel ni Boissy da nga war a def li nga xam ne Boissy def ko loolu mooy indi différence bi loolu mooy tax nga marqué li nga xam ne Boissy Boissy marqué ko donc loolu mooy discours bi mais tout compte fait pour revenir à la am na ñi nga xam ne ñu ngi ci béy seen i di jéemal ni liggéeyu Cheikh Anta Diop mais am na ñi nga xam ne comme eh, ses alliés politiques ñu mu doon àndal politiquement wax naa ni ki li def pour jëmmal combat Cheikh Anta Diop ko parce que Cheikh Anta mu ngi fi jógee 86 7 février 86 ba léegi. ñun ñu nga xam ne fekkee woon sax loolu noonu jub boobu ñun tuddooguñu ñu ñoo taxaw ci xeex ñu ne dañu war a intégrer œuvre Cheikh Anta Diop dans le programme scolaire du boobu ñoom fan la nekkoon kon jàpp ñoom ñu waroon xeex combat boobu noonu defuñu ko eh, di producteur di leen interpeller ci bi. Euh, jot gis nañu xaw ma ndax dëggal wala du dëgg mais am nañu écho comme quoi que ministre de l' supérieur de ministre de l' éducation mu ngi de génne na décret si wàllu réforme du système éducatif ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo parce que am na ñi nga xam ne ne ñooy acteur politique ñun ndaw yi nga xam ne ñun ñooy identifié à travers science bi ñu ngi leen di woon ne la nañu boole seen kàddu yi doon benn réforme bu ñu nekk di wax bu fekkee loolu la nañu xool naka la ñuy defee ba intégrer loolu Cheikh Anta Diop dans le programme scolaire parce que ñun dañu gëm ni kii le salut du Sénégal de l'Afrique ne se trouve nulle part ailleurs que dans les œuvres du professeur Cheikh Anta Diop merci. ok bu ma ko déggee Louga daal nekk comme benn pas bu nga loolu lu nekk sa da bu fekk da lu caag moo am. parce que Cheikh Anta ci boppam daf ko wax gis mënoo dem dal mënoo buus mënoo dab benn bu fekkee yow xamoo yow yaay dab te Cheikh Anta lu ñuy wooyee mooy ñun ñooy ñan moo tax mu naan formule bu àndul cours de science jusqu'au Coran yemul foofu de mais dafa ne arrachez votre patrimoine culturel Cheikh Anta moo fi taxaw parce que lan moo wax moo lan moo tax œuvre Cheikh Anta boo xoolee tey yenn yenn réew yëpp yi nga xam ne ñu ngi jéem a dem mais œuvre Cheikh Anta la ñuy jël approprié ko xam ne Cheikh a bi c'est un universaliste ñun lu mu xalaat xalaatu pour Sénégal kese dafa xalaatu pour ñëpp jël ko moom ko nee naa la parti politique wàllum éducation Cheikh dafa ne pour jàng Sénégal nee na aucun peuple ne peut se développer dans la langue et la culture d'autrui ñun tey mënuñu toog fii ba développer Sénégal ci kàllaama loolu yow xam nga ni bi mënul nekk man xam naa ni bi mënul mënul nekk mais li fi yor nguur gi ñun ci loolu la ñu ba Sénégal sa jàpp nañu pour nga àgg fenn fii foo nga jàng français donc loolu nekk na benn na benn waru affaire boo xam ne bu ñu dellusoon ci Cheikh Anta bu ñu yaataloon xalaat bi ci mbir mbirum Cheikh Anta te naa duñ doon àgg àgg fii boo xoolee ci côté politique j'ai développé les fondements économiques et culturels d'un futur état fédéral lan la Cheikh Anta bëgg woo foofu tant que ñu ngi fii ci suñu précaré bu ndaw di Sénégal Gambie nekk fi précaré bu ndaw Mali nekk fi précaré bu ndaw Guinée nekk fi précaré bu ndaw loolu ñu dem fenn parce Sénégal moom kese mënul def dara Gambie moom kese mënul def dara lan la war a def mooy dañu war a dem vers un état fédéral africain parce seen nee na bu ñu demee ci benn état fédéral africain ci lañ boobaa la ñi dégluñu hmm. si boobu bés boobu la la am doole suñu économie ci lay gën a ci lay gën a dundee dafay permettre yeneen questions yi ñu éviter ko tey par exemple boo demee jël par exemple le problème de la Casamance nga xam ne man foofu laa def autant MFDC di wax pour l' indépendance de la Casamance bu fekkoon Sénégal Gambie Guinée-Bissau formé woon nañu ñu nekk benn pays mais MFDC lan lay réclamé du réclamé ndax non wàllum rébellion bu ñu doon wax boobu réglé nañu problème boobu sans pourtant wax ak acteurs yi kon pour dire que ñoom nañu Cheikh Anta dëgg foofu ñu wax beneen bi boo demee ci côté par exemple Mali au niveau de Kidal vers le nord di saluer au passage les autorités les nouvelles autorités ñu nekk Bamako soo ku mel ni eh, Sower Bokalameka bind na ci benn livre bu am doon bu am bu am am am solo. Mhm. mu ngi wax naan. li ma dem wàllum division guerre bi fu mu commencé mais bu fekkoon Mali tey nekkoon na nekk ci benn état fédéral Mali Mauritanie Burkina mais on va plus parler de la zone des trois frontières parce que zone des trois frontières yooyu day daal di bu demee terrorisme fan la amati du amati fenn fu nga xam ne foofu la nekk donc Cheikh jour dañuy gis li ki Cheikh bi li moom mooy dëgg te bu fekkee caaxaan jeex na li ko faa di waxee bu ñu bàyyee tappale national dañuy soog daal pousse di œuvre Cheikh ñu avancé parce que bu loolu. fii la ñuy def moom suba ba mu la soixante ba léegi fa la ñuy def demuñu fenn comme Cheikh Anta solo comme ça si yow loolu comme cent mille bi dëgg yow bëri naa la comme léegi bëri na mu ne cent mille moom place bi. yow xam naa si communauté économique si yow rek dëgg loolu ah comme mooy émission. yooyu dama doon wax ana tey peut-être yan at yi lan lañ ko gis ngeen gis ci initiative boobu vraiment boobal ko. waaw euh, am na solo am na solo euh, depuis neuf ans ba euh, comme ni ma la waxee marché bi dafay màgg na première édition bi deux mille quinze benn nit la woon. deux deuxième année bi deux mille seize ñaari nit troisième année bi quatre noonu noonu noonu di évoluer noonu. Euh, luñ ci mën a wax euh, daanaka euh, ku fa ñëw boo ñëwee tey ci marché bi daanaka xanaa nga indi ñeneen waaye daal moom doo ñëw ne non vraiment affaire yi kii wu mos dolli la boo ñëwee ci marché bi yow am na yenn frère keroog sax moom ñu ngi na non vraiment famille yi ñuy euh, def waroon <laughs> waroon yokk parce que moom bëgguñu vraiment quitter euh, le groupe. te su dee jigéen dara nekkul ay sénégalais ay nationaux. non nekkul ay sénégalais effectivement sax lu am solo ngi noonu euh, parce que marche internationale la ñu wax. marche internationale la ñu wax te man mii moom marche bi yow moom moo ko kii moom moo marche Afrique marche àdduna la bépp africain comme ni koy waxee di ko woo. Euh, bépp africain war nga toog benn bés nga ne man il faut que ma dem pèlerinage euh, ceytu boobu il faut ma dox euh, natt sama bopp waxtaan ak Cheikh Anta Diop parce que ci yoon bi tam moom loolu dafay am da egg benn instant bi nga xam ne yow da ngay natt sa bopp engagement bi parce que dafa baax ci ndar yi waruñoo nii déclaré que wala engagé nañu pour Afrique nii dafay baax benn instant nga xool man li ma nekk di def ci Afrique bu ñu ma bàyyoon tey ak Afrique ak alalu lépp daal yan décision laay def parce que loolu dafa baax ci doomu doomu aadama donc euh, nationalité yi nga xam ne gis nañ ko ren ñu ñëw ci marche bi Ghana euh, Guinée Conakry mbokk ah, euh, comme man damay damay jàpp ni Afrique dëgg la donc région yooyu noonu quoi Uganda <laughs> Guinée Conakry euh, Congo ñëw euh, Mali voilà euh, Mali région Mali ñoom délégation la la lañ def daal moom ñoom caaxaan nañu bi dañ koy dañ ko yenn combat yi dañoo yenn combat donc euh, ci suñu frère yi nga ne dañoo jógee ci ci ci ci gox fii comme moom ñu jógee Casamance am ñuy jógee ay Tamba ñuy jógee ay Sédhiou ñëpp waaw Sédhiou ñëpp ñëpp comme ni ma la ko waxee da doo ci duggee yow xanaa xanaa nga woo ñeneen mais doo doo doo doo doo mën a génn parce que tam suñu biir gis nga lu nekk nii suñu biir ku ñu dee jàng ci sa morom. bu débat amee xool gars yi sañ ñu añ sax ñu bàyyi añ bi. mais débat bi duñ ko bàyyi. ndax dañ ci jàng lu bëri di nga gis xale bu ndaw nga defee ne xool ndeke xam-xam neen la ay doomu seexal la jóge nga xam ne ñoom daal moom xam-xam moo leen gënal euh, toogal nekk ci toogal yi donc loolu dafa am solo. te comme ni ñu koy faral di waxee euh, temps bi dafa jot. Hmm. te ñun àdduna xaaruñu àdduna xaaruñu damay faral di jël exemple li nga xam ne euh, moo amoon temps yi passé at yi passé muy pandémie bi mu ne africain yi ubbi leen seen i bu baax lii ay avertissement la. ñun ñu jógal seen bopp. beneen affaire lay doon. mën nañu doon continent bi nga xam ne moo gën a riche ci kër àdduna ressource boo natt ci ressource fii nga koy fii nga koy fekkee te ba pare doon population bu gën a pauvre xam nga loolu c'est contradictoire ba pare yor suuf bi nga xam ne tey bu ñu bu ñu jëlee 60 pour cent bi suñuy suufu Afrique fii bi nañ dund ñoom ba dundal àdduna hmm. te ba pare jël suñu Afrique gii nii mën nga ci dugal continent Europe. Euh, dugal ci Chine dugal ci États-Unis mu des trente millions de kilomètres carrés loolu du ay caaxaan ba pare bu ñu ñëwee di fond africain ne euh, population africaine dafa dafa bëri dafa bëri noor il faut ñu liggéey ci il faut nangam africain yi arrêté leen jub lii lan mooy problème Chine nii Chine ngi ci un milliard quatre cent et quelques euh, kii millions Inde ñu ngi si un milliard bu ko deful ay un milliard deux cent millions ñun Afrique ñaata lañu un milliard xaw ma euh, quatre cent lañu léegi genre yooyu noonu te fekk ñu ñun suñu réew ñu ko dugal Afrique euh, États-Unis ñu dugal ko Afrique Chine ñu dugal ko Afrique Europe ñu dugal ko Afrique mu des kon hmm. ko tuddee la solution solution laa ko tuddee mënuñoo tourné bi xam nga loolu noonu dafa dañoo tàmm ko jikko jooju noonu jikko bi nga xam ne da ngay tourné fee di di wër fii waa ànd ñi te fekk solution baa ngi nii suñu kanam kon wóoroon bi appliqué ko rek moo ci des am na solo rek dugg loolu ñu am na leen dolli Samori comme ni mu jógee si yow nga tàggatoo ak li di jaajëfal encore eh, seen seen bi seen info point net ñu ngi a di jaajëfal bu baax ci dalal bu ngeen ñu dalal euh, di jaajëfal population Sénégal a Casamance aussi fi ma jógee di jaajëfal waa marche internationale a Thiétou di jaajëfal adduna euh, bi yëpp bon di saluer au passage tous nos compatriotes ñi nga xam ne ils dans les régions africaines. te une fois ñu mosoon ñëw participer euh, à la marche internationale Dakar Thiès bi leen rappelé rek comme un frère Gabon ñu mosoon jógee Gabon ñëw participer à la marche lu mu doon wax rek donc mais à toute la jeunesse africaine que nous sommes les hirondelles qui annoncent le printemps de la renaissance africaine donc pour dire quoi Afrique ñun ñoo war a taxawal comme voici mu ko waxee et que tey war ñu bàyyi des faux activistes des faux politiciens des faux leaders ñu ñëw jël ko. dañ war a taxaw ci li nga xam moom la ñu nekk di def nous devons défendre l'Afrique sans xaar dara ci kenn rajo bi nga xam ne ñëw day ñëw pour introduire ñu sax xaaruñu ko ci quand on s'agit de défendre l'Afrique on le fait sans état d'âme dañ koy défendre te xaaruñu ñu filmé xaaruñu ku ñu ne merci xaaruñu ci ku ñu ne jërëjëf xaaruñu ku ñu may dër nit ñi ñëw nit ñi ñëw ñun on fait ce qu'on a à faire di profito yi eh, di sëñ yenn de presse comme yéen seen bos bi ngeen di def bii nii parce que am nañu bu ñuy dem am nañu ay ndaw yi nga xam ne dañu am seen organe comme yéen seen bos yi mais dañu ne pour participer ci combat bi ñoom dañuy indi seen organe yi ñu ñëw couvrir marche bi du début jusqu'à la fin ku mel ni euh, waa Kama TV ak waa Agora TV Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal bu baax suñu naattango yooyu photo yi yëpp gis nañu coono bi nga xam ne ñoom dem nañ ko effectivement di leen jaajëfal yéen Euh, à plus que yéen seen seen bi à plus communiqué sur le professeur Cheikh Anta Diop bi leen xamal it ñu ngi waajal centenaire u naissance Cheikh Anta Diop bu ñu ko yàlla euh, maye ñu fekkee ko dinañ ko organiser le 29 décembre mille neuf cent euh, le 29 le 29 décembre 2023 bi nga xam ne bi ñëw parce que la marche Dakar Thiétou foofu laa bëggoon ñu bëri ñu comprendre ko la marche Dakar Thiétou nekkul dox kese mm-hmm. la marche en tant que telle une structure maintenant les 154 km à pied, c'est une activité de la marche Dakar Thiès-Toul, activité qui vise à rendre hommage aux professeurs. Parmi tant d'autres activités. Voilà, parmi tant d'autres activités. Okay. On célèbre la naissance du professeur Cheikh Anta Diop. D'ailleurs, tourner Cheikh Anta Diop au niveau de la Casamance, passer dans les établissements. Mais euh, du yemu Casamance, kété daaw gars yi demoon nañu ba Dagana, ren gars yi ñu ngi wax waxu Sandiara, waxu donc lycée de Diourbel yu mel noonu marche bi da koy da koy dee da koy c'est des activités nga xam ne marche bi da koy def da koy da koy def quoi. Mm. kon ñu ngi jaajëfal ñëpp pour bañ a guddal moo jox Kordo ko jaajëfal moom it nga xam ne moom mooy suñu coordinateur. Mm. lu ne mu dégg ko lu nekk mu ngi ko mais eh, ku nga xam ne ku oyof la eh, ku dal. li ki nga xam ne c'est c'est vraiment un leader bu fekkee dañu ne leader leader la parce que c'est quelqu'un mbooloo mi lu mu bëri bëri bëri coono yi lu day rek bu baax a baax a ah, baax. Euh, euh, waaw waaw mooy sàmm rafet bu baax invitation nii euh, di leen gërëm di leen sant waa SeneInfo di leen ñaaneel yàlla yàlla na yàlla jàppale chaîne bi bu baax a baax parce que gis naa ay ndaw ay ndaw ñoo fi nekk ah di góorgóorlu bu baax donc mbir mi loolu la. Euh, di euh, gërëm di sant euh, suñu mareenu ren ah mareetu Jong Diop di gërëm di sant ah, ñi nga xam ne ñooy marcheurs yi ah comme ni ñu koy waxee même bu fekkee ne mu nga def ni sa bopp nga ko defal mais dafay baax tam ñu encouragé la ne la. Mm. fi nga teg sa baaram foofu noonu la euh, di gërëm suñu euh, partenaires yi nga xam ne moom cité na ko fi ñoom Sayer ñoom Casamance ñëpp daal ñu ngi leen di gërëm ak mouvement yi nga xam ne euh, jàpp nañ ci mbir mi di woo mouvement parce que waxtu unir suñuy doole doon benn waxtu woowu noonu jot nii amul man damay bi jubale côté bi kii euh, defee ko demee côté bi non non dafa jot instant bii nii euh, ñuy fédéré comme euh, nañ ko waxee di gërëm di sant ñëpp ñi ñi nga xam ne ñoo ngi extérieur bi ñu suivre diinoo euh, africain yépp ci li nga xam ne euh, mooy euh, marché bii nii kenn ku ne war nga mën a jóg benn ak sol say dàll ne damay def yi marché boobu noonu gërëm Cheikh Anta Diop ndax liggéey bi nga xam ne taxaw na ko pour Afrique ak àdduna bi di ñaanal ñëpp yàlla sàkku ñaan ci ñëpp di rafetlu bu baax a baax a baax li nga xam ne mooy invitation may ma tuuti rek ma lancé benn message dama bëgg rek su wax nit ñi ne leen hmm. marche internationale Dakar Kétu dañ ko bugg waroon lu naroon fàtte marche internationale Dakar Kétu def nañu pose première pierre pour tabax këru Cheikh Anta Diop ba nekk Kétu léegi nag euh, def nañu pose première pierre bi journée sept bi léegi nag marche bi soxla na cinquante volontaires yi nga xam ne kenn ku ci nekk chaque mois day jël engagement joxe dix mille pour ñu mën a tàmbali liggéey boobu mu nekk liggéey boo xam ne nag ñu ngi ci woo ñu ngi ci woo ñëpp di jaajëfal magu ceeb yi nga xam ne ñoom ñoo ñëpp di eh, bi di yeesal suñu jaane ci suñu kilifa boobu sëñ as ceetu ko yàlla xare ak jare bi jànnat yàlla tabbi ñu ci barkeel donc information boobu laa amoon pour lancer ne la liggéey bi commencé na kër la boo xam ne non seulement day servir pour dalal nit ñi mais day nekk musée en même mu nga xam ne képp ku nga xam ne bëgg nga xam bu yàlla ci yàlla àndee boo fa ñëwee rek da nga fay am toutes les informations sur le professeur Cheikh Anta Diop et ça c'est toutes les domaines loolu moo nekk li nga xam ne marche bi mu ngi koy mu ngi koy jëmal te bëgg nañu fi balaa déwén fonds yi dugg ñu mën a àggali liggéey bi merci na solo ñu leen di jaajëfal bu baax a baax euh, euh, ki xam ne moom mooy euh, le coordinateur Boissy wante Ibrahima Samori Samori sax ah kon comme daaw kuréel nangu la macha allah ak saa moom kuréel tam yaakaar naa waxtaan am na solo trop trop trop te ku dégg mën a waxtaan bi ci jëlee loo xam ne yokkute lay doon jàngale ci kii di professeur Cheikh Anta Diop ñu ngi koy ñaan yàlla yërëm ko it xarit àdduna ci 37 ans yi ñu ko doon 300 anniversaire am kon ngeen ko doon màggal. Euh, di leen jaajëfal di jaajëfal itam ab xam naa bu ñu waxee nag comme li wax bu ñu waxee peut être at boo xam ne bii dinañ jóg. incha allah ànd ak yéen euh, dem toppatoo affaire yi alhamdulilah parce que jar na ko quoi incha allah ñu leen jaajëfal kon bu baax di jaajëfal itam mbokk internet yi ñuy bàyyi xel euh, saa su ne ñu leen jox di daje altine si Sénégal international